mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di tënkal rek li fi am ci jataay bi kilifa yëpp teew nañ ñuy xamle ni incha allah ci bis bii nga xam ni bis bu historique la ndax pour la première fois benn faculté des sciences religieuses ñu reconnaître ko fii ci Sénégal muy taxaw ci wàllu formation religieuse ak science islamique ak lu ni mel war a recevoir ay étudiants yu jóge fu ne rawatina ay étudiants yoo xam ni état bi ci boppam ñoo leen orienté par le ministère de l'enseignement supérieur loolu mu ngi door a am Sénégal ñu di ko amele fii ci barab bi ginnaaw fukki at bi nga xam ni teg nañ fii sëñ bi teg na fi xeer bi nga xam ni mooy premier pierre bi ñu tegoon fii ci 2006 ngir taxaw université bi sëñ Mamour déclaré ko ànd ci ak mbokkam yépp taxaw ci taxawaay bu rafet def ci li mu ci def ci njàmbaaru boppam ba liggéey bi yegg si fii mu ànd ko tey ak mbokkam yi mu bokkal diine ji yëpp ñu bokkal dëkk bi ñu bokkal réew mi ngir ñu taxawee jataay boobu jataay bii nag kalimaat yi muy kàddu yi ñoo fi nar a root incha allah mooy discours bi nga xam ni mooy tatagal gan ñi di leen dalal sëñ Mamor moom ci boppam moo koy joxe incha allah niki noonu ku ñuy wax professeur Talla Cissé bokk ci saf bi liggéey ci wetu sëriñ bi ci wàllu pédagogie moom it dana ñëw def benn discours boo xam ne dafay leeral étape yi université Cheikh Ahmadou Bamba jaar ba egsi fii. niki noonu danañ jox ki nga xam ni moom mooy président du conseil scientifique de l'université Cheikh Ahmadou Bamba monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne mi ngi fii moom tam dana fi def discours. bu jàllee niki noonu danañ jox incha allah kàddu gi monsieur le maire de la ville de Touba Abdoul Ahad bu jàllee danañ jox. kaddu gi son excellence monsieur l'ambassadeur de du royaume d'Espagne mi ngi fii ci jataay bi dana fi jël kaddu ki noonu dana jox kaddu gi itam benn architecte bu mag boo xam ni allemand la dafa tuub dugg ci lislaam mi ngi tudd Mahmoud Boudo ñëpp xam ko ndax moom mii moo defal parasol yi nekk ci jumaay yonante bi sallallahu alayhi wa moom moo ko defar muy architecte bu ñu xam ci àdduna bi yépp defar liggéey yu am solo ca jumaa ju mag ji nekk Makka ñëw fii di xaritu sëñ Mamor bëgg jàpp ci université bi moo tax mu jógee Allemagne ba yegsi ànd ak délégation bu mag a mag. ni ngi noonu itam danañ jox incha allah kàddu gi ki nga xam ni moom moo représenté ministère de l' enseignement supérieur et de la recherche. njëg si nañ léegi ak seen délégation bu am solo ñu ngi ci jataay bi ñuy saluer itam au passage. Euh, madame la de l'université de Saint-Louis mi ngi ci jataay bi moom tam de de Thiès euh, niki noonu kon incha allah dana tëje jataay bi bu ñu demee ba jeexal ñaan yàlla tabaraka wa taala moom la ñuy tëje jataay bi bu ñu jógee nag sëñ Mamor ak gan ñi ak autorités yi danañ ànd incha allah dem ci ni ñu ko baaxoo defee ci euh, liy symboliser ubbiteeg kuliya bu mag bi muy faculté bu mag bi muy dana dagg ruban bi incha allah ni ki noonu itam muri tableau bi nga xam ni mooy tableau bi symboliser euh, inauguration wu une faculté bi ñu nekk muy faculté des sciences religieuses xam naa su fekkee jarul ñu koy wax ci tënk ci tubaab kon dañuy daal di dugg directement rek ndax waxtu mi ngi dem ci incha allah ci discours yi kon ñu jox micro bi sëriñ Mamoor Mbàkke Murtada waaw sëriñ Aroona Mbàkke maa ngi jégalu sëriñ Aroona Mbàkke Murtada moom la ñuy jox micro bi incha allah mu ubbil ñu jotaay bi ci ayaat auzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim ما كان على النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله wa kafaa billaahi wakiila sadaqallaahu al-aziim lakin ismahu li min gayri maqulin ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim laka alhamdu walshukru alladi la intihaa lah walwaxidu almuhni alladi kathara alqula laka alilmu walacmaalu walxayru kullu alayka salaatu llahi yaa man ala al asla sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi fi lxaali wal maali ixwat al aizaa salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatuh min gayri maqulin inhaau qiraati hadihi al ayat al karima duna tawjihi jazila tashakurat li rajulin kabirin qaama bi amalin azim ala wa huwa cheikhun amamur حفظه الله ورعاه إخوتي وأخواتي ما أجمل اللقاء إذا كان اللقاء لقاء العلم وأهله لقاء يدل على أن مقيمه له ماض لأن من لا ماضي له لا حاضر له ومن لا حاضر له فكيف له أن يكون له مستقبلاً fa innaka yaa cheikh rajulun azimun wafiyun laqad addayta al-amaana alladi urida ala as-samaawaati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insaanu innahu kaana zaluuman jahuula cheikhuna al-aziim anta rajulun kabiirun qumta bi rajulin bi amalin عظيم لكن أقول من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ومن عاش لدينه عاش كبيرا ومات كبيرا فأنت رجل كريم وأخيرا أقول ما قيل لسيدنا حسين رضي الله عنه يوم قدومه إلى الكوفة قيل له يا حسين fa inna al yawma xulubu nnaas maak wa suyufuhum gadan alayk lakin aqulu laka fa inna xulubuna al yawma maaka wa suyufuna gadan laka laa alayka wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu leen di dalal ci turu sëñ Muntaxa Mbàkke parce que mooy sëñ Tuuba te fii sëñ Tuuba rek ko tax a jóg ñi ngi nuyu ñi fi nekk ñépp nag xëy na tur yi dañ koy duñ ci mën a jaar ñépp waaye ku fi ñëw rek jaru ko sax ndax da nga fee am sa place bopp ndax fii du ñëpp fi mën a ñëw xëy na ñëpp fi yéene sax waaye du ñëpp ko mën kon bu ñu nuyoo ki nga xam ne mooy kilifa yi nga xam ne ñooy moom yëf yi di leen jottali nuyoo sëñ sëñ Muntaxa ñu ngi nuyu tamit mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal président teew fii tamit ministre de l'enseignement supérieur bi nga xam ne wax na ne metti lu na lool bis bi te xam nañ ko ndax dafa tase ak seen conseil des te ñun tamit bañ koy jàpp. dafa amoon lu taxoon nañ njëkkoon nañ ko jàpp sax waaye am kilifa yu mag yoo xam ne seenu teew daf ñoo gënaloon moo tax ñu indi ko ci bis bi waaye moom xam nañu ko bu baax te ñii ko fi teewale xamante nañ bu baax xam nañ seen taxawaay kenn ci ñoom képp bu teewee dina doy sëkk ñu ngi leen di nuyu di leen dalal bu baax di nuyu tamit monsieur l'ambassadeur de l'Espagne soyez la bienvenue chez vous merci beaucoup d'être venu di nuyu bu baax Saad Safir le monsieur l'ambassadeur sëñ Abdoul Mbacke sëñ Abdoul Ahad Mbacke di suñu um, um, frère di moom itam ci taxawaayam bi nga xam ne moom la taxaw ci biti te wane wu li nga xam ne moom la doon loola tax ñu di ko sant te liggéey bu yombul waaye yàqalu ko fii wante yàqalu ko tamit foofa di nuyu nag bu baax professeur Souleymane Bachir ni ngeen ko waxee boroom xam-xam boo xam ne boo waxee loo wax rek. ku ne xam ne ne du de lu lu jaar ci noppam du jàll mais néew na ñu wax ko dara mënuñu loolu jubul kon kooku daf lay encouragé bu baax loolu dañ tax ñuy itam ñu ngi koy sant bañ tàmbalee ba léegi mu nekk ci suñu wet di suñu frère ñu ngi koy sant bu baax ak sa sëram bi nga xam ne mooy soxna Ramatoulaye moom itam nekk rek te di si Thiès di nuyu professeur Mamadou Mamadou Sankhare moo nekkoon directeur de l'enseignement supérieur privé moom itam di bu baax ñu nekk di jaxasoo muy muy ñu di ko wax muy dégg ndax problème bi du wax mais ki lay dégg tey borom xam-xam kooku daf lay daf lay daf lay encouragé bu baax moo tax lu nekk daf ñu koy dégg moom ñoom ñii fi nekk ànd ak ministre bi danañ ci tudd Senghane xëy na sax bu kilifaam ñëwee buñ ko tudd waaye ñoom dañuy ñoo xam ne dañu loo teel a dégg lool comme li dal ministre bi rek moo tax yàlla na leen yàlla sàmm ñoom itam di gën a jëmee kanam Euh, Abdoulahat Ka mooy le maire bu Touba ci taxawaayam lépp lu mu yëg ci ñun moo ko ci def te du ko du ca wax ñu ngi koy sant bu baax a baax xëy na boppam la koy sax defal waaye yéene ji mu ko ak ni mu koy defee. dina du nuyu tam suñu jarbaat Abdou Abdou Ndaw moom mi ngi mi ngi Mbacke mooy maire bi waaye moom it day teg loola dëgg la muy liggéey lam ko ca war a def danga la ko jox waaye dafay bàyyi lépp laxasaay moom itam nekk ci suñu wet ñu ngi koy sant bu baax. di sant nag kilifay diine yi fi nekk yépp ak ñi nga xam ne yépp noo seq liggéey bi lim ngeen ko sànq établissement yeeg ñi nga xam ne ñoo yore association ak ñëpp ñu ngi fi te ñoom ñëpp jëluñu soxla lim ndax ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi di euh, di nuyu bu baax ñi nga xam ne mooy autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi tàmbalee ko ci préfet ba ci le sous préfet bi nga xam ne moo nekk fi moom itam ci taxawaayam moom itam ñu ngi koy sant bu baax bu fi teewee xam ne ne ñëpp teew nañ fi ñu ngi koy gërëm bu baax ci ak taxawaay wax guddi ak bëccëg euh, di nuyu nag mboolem professeurs yi nga xam ne ñoo nekkoon ci suñu wet di nuyu tamit étudiants yi nga xam ne excès guñu ñu ngi leen di dalal nga xam ne ñoom la ñoom la enseignement supérieur orienté fii xanaa rek balaa ministre balaa ministre dem ñu wax ni fii li ko taxoon jóg mooy danaa ko wax ci kanam mooy loo xam ne. discours la boo xam ne ba ma koy def boobu ndaw laa dañ doon ubbi école kaw la yàlla xéewale ma bu 40 ans ci ren ndax 78 la woon 77 ma waxoon ca ne boobu waxi wax rek du woon wax boo xam ne waxi ku xam la muy wax jàmm gis rek jàpp ne nit ki lu mu nekk ci moom rek ma ne dañoo war a amal une nouvelle génération maanaam nit ñu bees ñoo xam ne ay ndaw la doon ñoo xam ne dañuy dox dañuy doxe seen xel di téye seen conscience nag bu ko bu ko kenn bëcc bëccee loolu bañ koy wax léegi ren la ci ñeent fukkeelu at kon loolu dafa nekk loo xam ne kon dafa mel ne ñu ngi ci bunt bi euh, di leen sant bu baax nag ci turu ni ma ko waxee sëñ Muntaxa dana ñëw ci kanam waaye ñu ngi ñaanit xam nañu organiser dañ koo yërëm ci ne bàyyi nañ bàyyi bañ noppi ñu ma ngi toog di ñu déglu wax na wax boo xam ne du doy waar la ndax wax na ne buñ ko doon teg di ko puus sax ci puus puus day ñëw kooku nag beneen affaire la moo tax nag kon nañ ko dimbalee eh, bu ñëwee ñu bàyyi ko mu ubbi bunt bi ndax eh, lii yëfi sëñ Tuubaa la te moo fi nekk sëñ Tuubaa kon moo ko war a ji kon ñu ngi leen sant yéen ñëpp nag ci teewaay bi di sant ñi nga xam ne mooy organiser sama rakk yi ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi ñoom ñëpp ak bokk ci laxasaayu ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci comité de l'organisation bi damay bañ parce waaye xam nañ bu baax xam ne xam naa ko duñ ci xanaa buñ waxee sëñ Murtala sëñ sëñ sëñ Tàkko ak Murtala Amar ñooñu tur yu sax dafay doy waaye damay wax ne ñoom dañoo jiite groupe boo xam ne kenn ku ci nekk dafa am yéene ci yëf yi ak ñi nga xam ne moom laa bokkoon nag liggéey bi ñu ngi leen bu baax ah, di xam ne xam nañ ne sonn ngeen ndax fi jamono bi toll ku woote nit tey la màggalu Daaru Mooti bi mu desee ay juróomi fan laa gis sëñ sëñ Abbas lu bàyyi suñu sëñ Abbas ne ko li tax ñu jàpp jàppoon nañ ko lu jiitu muy le deux bi xamuñu woon ne boobu sax ci leen màggal gi biñ demee ba ci biir yëg ko dem naa bañ ne dañ koy fomm waaye ma ne ak ah, loolu kon beneen affaire lay doon kon dafay nekk erreur ci ñun ndax bu fekkente ne maam Thierno sëñ Touba da ko doy lawoon ci xam-xam sëñ tubaab tamit gën euh, euh, feeñ ci àdduna ci les li nisfu Saabaan bi la guddeeg la Saabaan la ñëpp la li gën a daje moom lañ wax ne ci la feeñ kon ñu jàpp bis boo xam ne ñun bañ koy jàpp xamal woon rek ci bis boobu lay doon kon fomm gi dafa nekk leneen kon mu ñu jox la nga sànni ko kon bi ma ko waxee sëñ Abbas moom def ne loolu benn amul wax ci wax ko du rafet loolu tamit moo ñu ci dugal moo tax ñu xam ne bis bii ñu xam ne kon ñi koy def tey mooy bis bi nga xam ne mooy bi la sëñ Touba dajewoon ak maam Thierno ñu di ko màggal màggal bu Darou Moussi wante tamit ci la sëñ Touba feeñoon ci àdduna kon nekkul loo xam ne lu lu lu ñu lu ñu tànnal suñu bopp la te ku ne xam ne maam Thierno. palaasam ci sëñ Touba ni ngeen ko waxee léegi mooy bras droit wala neneen lu gën a fort sax loolu waaw ndax bras xëy na dafay tuuti mais defe naa la adut moo gën a wala sax jërul sax définir ko nañ bàyyi noonu rek moo xam ñoo xam ñoom ñaar ñi ko seq euh, kon li ma waxoon ne kon euh, ñeent fukkeel at ci ren ñu waxoon loolu biñ koy waxit du woon xam lu ñëwagul parce que ba léegi si nga xam ne mag laa sax xamaguma lu ñëwagul kon bu ma demee ko ne as ci te jéemuñu ko sax xam xay bu sax man damay wax ne suñ ma ko bëggoon a xamal sama bañ parce que damay indil ay problème ndax am na yoo xam ne boo ko xamee du neex doo doo a noyeete kon kon du woon loolu foofu lañ ko tegoon euh, du woon it euh, tàndal la rek la woon parce que jur jullit dañuy wax ne am na sañ-sañu di di di tàndale di ko tàndale ci lu baax kon loolu moo taxoon ñu jàpp ne ñu wax wax boobu nga xam ne dañ cee jublu woon sunu doom yi tey te mooy li feeñ ndax tey bu fekkente ni université Ahmadou Bamba bu mu tàmbalee léegi ci fukki at la wala bi ñu ko tàmbalee liggéey bi waaye bi ñu ci tàmbalee génne ay nit ak léegi tàmbalee ko ci ndax dañuy wax ne ñun lañ jàppoon léegi lu nekk ci enseignement professionnel waaye formation professionnelle la woon dañoo tàmbale woon parce que ñi amoon diplôme baccalauréat xëy na kii bi danañ ko comité bi danañ gën a leeral yooyu ñi amoon baccalauréat euh, franc euh, arabe lañ waxoon ne ñun comme amatuñ mënuñu leen a bàyyi ñuy génn di dem ci biti te génn bi arrangé tuñu parce que am na lu doon changé kon lu ñu mën a def mooy nañu nañu jéem rek euh, forcer suñu bopp mais forcer sa bopp te te diplôme yi nga cee amit état du ko nangu loolu moo tax ñu commencé ci formation bi maanaam bac jàng ñaari at am diplôme boo xam ne bañ koy def diplôme bi tamit du état bi daf ñu ko may dañu leen a fekk ci seen i classe defandoog ñoom examen bi am na ñëpp ñu xam ne ñu naan ñu naan fii ñii fan la ñu jógee ndax ay nit la ñu wala ay du ñu ay nit ndax nit ku jàng arab jàng damay wax ne ñun jànguñu arab c'est-à-dire langue bi ñu jàng mooy arab dañuy wax ne arab ñun moog langue français bi mooy damay wax ne jànguñu ñun français langue bi mooy français bi seen culture la seen affaire la ñun li ñu booleeg diine ji arab bi mooy alquran ak yonent bi sallallahu alayhi bi moom la ñu booleeg xëy na di ko waxee fii rek waaye bu ñu paree ñu pare nañ ci ñoom soxlawuñu suñu suñu culture la ñu soxla muy anglophone ba loolu maye nag ci biir loolu yi danañ may xale yi ñu fexe bay jokkalante ci làkk yoo xam ne lu mu tuuti tuuti mu man ñett yooyu muy arabe bi ñuy jàng ak français bu ñuy liggéeyee fii ak anglais bi nga xam ne mooy langue bu adduna bi loolu dafa bokk ci sart yi nga xam ne ci biir université bi la bokk kon dafa mel ne bi ñu amee BTS yooyu xam naa leeral bu ëpp danañ ko def danañ ko def biñ ko duggee dem fekki Blaise Diagne participer nekk candidat libre daal di ñun ñëpp candidat yi ñu fa yóbboon ñëpp jàll. loolu moo leen taxoon a jaaxle ministre bi ñii fi nekk nag ci seen seen nguuru seen euh, mandat président bi ak Mary Teuw Niane ak seen staff boobu ñooñu comprendre nag ndax ay professeur rek lañu ndax dafa am loo xam ne ki ko xam moom nga ko mën a expliquer kenn ku ci nekk bu ñu la waxee suñu projet waxuma sax nga li may wax honnêteté intellectuelle moom dañoo bokkul ci ñi ko deful. kuñ ci wax suñu projet def naan ba ci ministre bi sax léegi la ma dégg ciy wax ne ma moo ko wax ne ko modèle la yore kon ñooñu lii moo tax ñu xam liñ fi ñu bëgg a dem ñu xalaat ne noonu nii lañ bëggee moo tax maa ngi wax ak professeur Sànq rek ma ne ko ñun dañoo bëgg di carrière muy taarix histoire xam-xam bu ne dañoo bëgg di ca jëmale di ca dem di ca di ca xalaat loo xam ne dañ ko ci dolli kon loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu doon wax loolu mu mel ne kon bi ñu ko tàmbalee jafe loolu la woon bi ñu ko tàmbalee dañu ko tàmbalee ngir bëgg a dugg ngir bëgg a dugg mooy yow bu la bu fekkee da ngaa bëgg ñu jàngal la te la ngay jàngal amuloo ko la ko jàngal ci sa làkk amuloo ko ko jàngal ca làkk wa nga xam ne moom nga tàmbalee muy arab ba mais lan moo ci des ñun duñu ay français parce que taxunoo jóg nu ay anglais mais duñu ay arab am taxunoo jóg kon lu ñuy def nan fexe ba langue bi ki ko mën a xam ki ko mën a jàngale na ñëw jàngale ñu ñun xam-xam bi rek lañu soxla moo tax damay wax xale yi di leen ñun jànguñu naar jànguñu fa tubaab jànguñu anglais li ñu jàng mooy diine ak xam-xam loolu lañu soxla defe naa loolu résultat bi feeñ na parce que ñi ci jot a génn am na ci ñu bari ñu ma wax dem ñi ñëngal leen yóbbu ay Rwanda ñi ci des ñoo defar seen tapis boobu ci ci ci rapport bi bu jas bi mooy bi indi bagage yi te ay ñooñu dañoo jàng rek ñaari at la BTS la ñooñu rek la ñu am kon amaguñ sax licence te loolu nekk ay techniques yoo xam ne kenn ci nekk fi mu ne yaa ngi ci benn organe boo xam ne kilifa nga fa démb lañ fi ñëwoon ci ki ci taxawoon ci jumaa jii tey di waat di di di xutba naan xanaa ci sa xamul ci leneen kon loolu moom loolu la diine soxla diine diine ñàkk koo dégg weesuwul nga ne diine mooy eh, toog di julli kooku nit ki dafa war a def am la kenn yëfi personnel la mais nekk médecin wala nga nekk pilote wala nga nekk ingénieur mais kooku yëfi nit la yàlla moo ko jox nit nit ki nag nu mu ko mën a xamee daf ko war a xam te defe naa nitu diine gi moo war a jiitu kon loolu ñun la ñu gisee diine loolu la ñu jàngate diine la ca des nag kenn ku ci ñoom ci ñii ma wax génn nañ am seen diplôme nekk nga boo fekkoon ñu sol seen jiin kenn koo ci songu ci diine bu tur da nga ci am kersa loolu nag ñun lañ bëgg dañoo bëgg nit koo xam ne dafay xam mu des xam la muy xam di ko def ànd ko pas-pas ba ànd ko gëm-gëm loolu moo sañ ci loolu kon loolu moom lañ sance woon ñi nga xam ne yëpp moo ko jiitu muy dakaar Dakar Bambey agriculture ba la nekk nga fekk ko ci tool yi muy bay mais bu noppi dugg ca jàkka ja waar la loolu mun doon tàmbali muy finance bi islamique bi wala muy yeneen yi nga xam ne yëpp moom lañ moom lañ ci sémbu ndax ku ne xam ne ne diine ak ak xam-xam ñooy ñooy ñooy ñooy ànd waaye saa boo ko séparé rek dafa mel ne am na lu yàlla euh, moom am loo xam ne nit ko moom te xam-xam yàlla moo ko jox doomu moo ko ko sànnil fu nekk moo tax ngay gis toujours japonais baag français baag espagnol baag kenn ku ci nekk mën a nekk spécialiste ci benn matière boo xam ne yéen ci yem te kenn dëggantewul ak sa morom bu fekkoon ne ci làkk benn lañ ko def kon balaa koo kenn xam day dem ci làkk morom bi kon ñun tamit mënoon nañu sax di nekk ay ingénieur rek ay médecin te sax duñ xam lu nekk suñu wolof wala suñu alpulaar wala suñu ay séréer loolu lépp mooy dafa wan ne diine la nga ko jàng la nga jàng ca xam-xam ba xam-xam bi yàlla moo ko jox doomu aadama ñun noonu lañ doon gise moom la ñu sañ moo tax ñu defe ne dañuy indi génération loolu lañ ñu ngi koy mën a firi nag benn woon booba kon loolu moo taxoon ñu ñu def noonu euh, ci ci loolu mooy tax li ci des nag mooy moo tax nag bi ñu ko tegee première pierre bi ci 2005 euh, ci ci ci ci ci ci. ci deux mille deux mille deux mille cinq bi waaw bi ñu ko tegee ci kilifteefu sëñ sëñ Saliou ma wax ko ko mu mu joxe ndigal ñu indi ko fii sëñ Mouhamadou Lamine Bara yal na ko yàlla doo leeram ak sëñ bii sëñ Mountakha mii nekk tey xalifa yal na ko fi yàlla yàggal ñoom ñoo ñëwoon teg xeer yi def naa photo yi mu ngi fii loolu ñu teg ko ñu tàmbali nag tàmbali dakaar kon dafa mel ne du tey tey fii lañ liñ gënoon a amal solo muy diine dañ koo sanc fii ci daarul alim daarul alim nag defe naa kenn ku ko expliqué ku xam ci yoon wi mooy barab bi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Bamba sancoon jox ko sëñ Daam Abdourahman mu yaroo ko fi ak njabootam di leen jàngal dañuy wax ne daaru salaam daaru salaam mooy kër gi genn kër gi fi sëñ Touba amoon la tudde woon noonu mais daarul alim moom moom la ko joxoon kon damay wax ne ñun sax këru sëñ tubaa ga moom këru sëñ Touba la sëñ Touba ga mais daarul alim nag moo jëllu ndax genn xam-xam la te kon fii ci daarul alim la bokk kon loolu moo tax mi lii am fi tey du war a nekk ak mbett ci kaw kenn ah, loolu ñu commencé nekk ci ndax gisoon nañ ne ñi am baccalauréat di dem li ci bari bu ñu ñëwee léeg-léeg ñu am changement parce que gis ngeen li xew événement yi léegi ndax lañ leen di jàngal diine lañ doon xëy na ci lañ koy waxee mais diine ba dañu seet la leen ca neex ñu firee ko na leen neex te ñun bu doon lool bu ñu fi génn ndax mag ñi fi nekk ku ne xam na li fi nekk ci am xam-xam doy waaye dañu doon dem rek ngir def seen académie wala ñu def seen jàng mais dañ mujj ñu indi leen ci problème yoo xam ne sax far loolu moo taxoon ñu ñu carrière université bi loolu ba tey ñu man cee xam ne loolu lépp dafa nekk ci euh, ci programme itam euh, euh, système sëñ Touba sëñ Touba fekkoon na fi ñuy jàngale mais dafa ñëw indil indi indi yo yeesal indi yeesal du nga dindi la fa nekk sànni dafa ñëw fekk loo xam jàpp ne nii laay defee kon ñun tamit buñ toog rek dañoo war di parce que yeesal yonent bi moo ko digle woon moo wax ne téeméer at yu nekk dañ nañ deel seen diine mais yeesal na boo ñu nga nga sos nga sos ca dugal ci lu ci bokk wante sañ nga kon sëñ Tuubaa tamit moom permettre loolu kon tamit moom bu ñëwee fekk ay ay baay ay waajur ma ak kilifa diine yi fi nekkoon yépp mu yeesal ñu ànd caag mais ñun tam bu ñu demee ba ba egg foo xam ne xam nañ ne yeesal rek la sosuñu nekk bu boobaa dafay nekk farate ci ñun wala dafay nekk waajib ci ñun kon loolu rek moo tax sëñ Mourtada tàmbali woon lii ñu ñëw ba léegi itam gis na lii tamit lii moo ci war a topp te yaakaar naa ne itamit da dana moo dana sori mu mel ne kon loolu moo taxoon bi ñu koy bi ñu koy teg bi ñuy def lancement bi ma jiitaloon ci sa Abdou Fatah yàlla na ko yàlla doole leer bu sëñ Cheikh Mbacké moom sax laa ne dañu koy tuddee euh, euh, département santé bi nga xam ne moo nekk Mesra te genn ku ku am solo tàmbal def defar defal ñu ko ba mu mel na mu war a mel xëy na du bëgg ñuy tudd yooyu la ca des. kon danañ ko inauguré xëy na bu ñu nekkee dañoo nekk ak ministre de la santé parce que santé bi du ñoom ñii ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy sottal donte ci enseignement supérieur la sax waaye dafa am loo xam ne ministre de santé lay doon. loolu kon ñi ngi sant bu baax gouvernement Sénégal bi ma ko waxee sànq mi monsieur le directeur du directeur de l'enseignement supérieur ñi ngi lay ñaan nga jottali le ministre jottali ñu président parce que amoon na ay jafe yu bare bi ñu tàmbali am na ñoo xam ne sax dañu doon wax la ndax mooy ñi amul gis-gis. waaw gis-gis dafa baax ci jàngkat te bu fekkoon ne sax am ndaw ko naa koy wax sax du am problème mais ku ñu de boroom xam-xam nga nga ne dara du am kooku xam-xam sax est-ce que jar mat na parce que xam-xam vision la am ak courage ak jima carrière mais dara du am moom xam-xam du ko wax donc diplôme bu rëy rëy rëy ñun ñun bokk ko jàppe loolu loolu la dafa mel ne passé nañ ko ba ñoo xam ne dañuy wax même bu dee am sax dana jafe ci dëkk bi réew mi mais réew mi état la ci ay nit lañ noog ñoo bokk koo ci wax état boo ko waxee lu leer lu mën a dégg mais xam nañu loolu demoon mën nañu ci dugal ne nootuñu leen te dañ ko teg ci yoon nag ndax lépp loo xam ne ay la ñu war a def dañ ko dañ ko def ba mat kon ñu ngi lay sant bu baax monsieur la directeur général nga jot jottaloon ñu ak sëñ yi nga xam ne ñëpp nag ñoo lay jàppale duñ ko lim waaye cinquante ak ñoo ñëpp ci lañ ci liggéey bi lañ bokk waaw mooy li ma waxoon rek loolu moom lañu waxoon kon université Cheikh Ahmadou Bamba du du du carrière lu bees waaye dafay nekk sof sof hmm? kon diine soo ko defee ci lool soo ci dugalee lu ci bokkul loolu moo tax ñu xale yi bi ñu ñëwee tamit courage rek la mais gis ci résultat boo xam ne ka fa jóge ak boo fa demoon it dootoo ko fa am parce que nga ci loo xam ne itam loolu mën nga ko mënoon ko fa bañ am ndax ak fa am fu ñu lay limité ñoom itamit bi ñëwee sax ci lañ xam ne ndeke ñun capable nañ ci lu nekk. ñu gis ne nag diine boobu nga xam ne moom lañuy ñuy di ko ca dugal lu ne bu fekkente ni kilifa yi taxawuñ ci di ci xalaat jéem a former sunu doom yi jéem leen a teg ci yoonu baax ci xam-xam bu wér ci ci éducation bu sell orienté leen ci lu baax ci comportement yu baax damay wax ne bu ñu wóotuwul kenn ku ne jóg ci sa responsabilité li ñu daan wax ne guerre mondiale ñaari guerre mondiale yëpp ku ne xam ne ne politique a ca ëpp mais boddi kon te itam am nañ ca waaye diine bu ci diine amee tamit bariwul woon mais boddikonte ak leneen ko politique kon loolu mën na jàll mais bu fekkente ne beneen am na troisième guerre mondiale boo xam ne dañ caa dugal diine te mi ngi ci bëgg a dugg ko ci dugalee boobu guerre moom mooy tukkal àddina parce que du jeex ndax léegi la lépp gën a yomb man ngaa toog fi wax lu rëy ñu doon gis ko léegi kon nañu moytandiku xale yi nga xam ne fexe ba yar leen ci diine wax leen li nga xam ne moo taxoon diine diine diine diine diine jóg ndax même bu fekkente ne du geer boo xam ne ay arme la mais geeru geeru boo xam ne xala kóolut kenn du nekkati ci ci ci ci ci ci dala la te loolu dafay yàq moo tax nag li nga xam ne mooy mooy euh, université yi ñu war a fexe ba def loo xam ne lii lépp dana ci mën a fexe ba defal ci sunu mm, doom yi nga xam ne ñooyu xale ñëw sunu sunu ginnaaw loolu kon xale yi ngeen xam ne yéen ko moom léegi des nag xëy na binduñu ko fii waaye dañ ko ci dugal rek mooy yéen a ko moom yéen ko moom nag jàng la dañoo bëgg ku jàng am xam-xam fii nag monsieur le ministre monsieur le yéen a ngi fi am ngeen seen lu ñuy wax comité de discipline am ngeen ay rek mais ñun amuñu ko de xale boo xam ne ñëw na fi jubate wala mu dugg ci lu ñu xamul dañ koy dàq delloo la seen ngeen nangu bursam ñeen a xam duñ dana am na comité formalisé ko waaye loolu ñu xam ko parce que fii yar nit ak defar nit boo ko tax a jóg xamewuñu tijaan ba xamewuñu murit ba xamewuñu kenn nit lañ bëgg parce que sëñ Tuubaa xamewul woon ku dul nit ak jullit ba Cheikh Sidi Asma ne mboolem kilifa diine yooyu loolu lañ xamoon xëy na dañoo dem ba dugal ci lu ci bokkut par par intérêt mais ñoom xamuñu xamuñu woon loolu liñ xamoon mooy kenn ku ci nekk boo xamee moo tax sax maa ngi bëgg ñu xool taarix histoire ak siyaaxa tourisme bi ma fekkoon xale yi di ko def expose ñu fexe ba gëstu ci kër yi bu baax xam seen relation bu ko defee ñu bind ko bu baax lañ joxalante ci ay téere boo si kër sëñ Abdoulaye Niass demee ci kër Cheikh Hadj nga dem ci Laayeen nga dem nangam foo ci dem da fekk ay histoire ci sëñ Touba yoo xam ne yow mi nga xam ne yow yaa jàpp nga ne yaa ci jiitu sax bootul ñoom ñu jiitu la ca naka noonu foo ci dem ci ña ca des kon ñooñu dañoo bëgg xale yi moom mucc ci problème yooyu waaw polémique yooyu ak ak ak ak ak demee noonu bu ko defee danañ mën a taxawal ñoo xam ne ëllëg ci biir ñooy mën a nekk Sénégal ñi ak borom ñu gën kon tey ñu ngi ubbi ko euh, science euh, maanaam faculté bu science religieuse ak humanité ak civilisation kon mboolem lu jëm ci ilam njàngum diine fii lañ koy jànge moo xam tawxiid la moo xam fiqh moo xam usul la wala tafsir lu jëm ci humanité di tamit fii lañ koy jàng muy ak langue langue ya langue yi am na yenn fukk ay loo xam ne ñoom danañ ci gën a dellu soit looloo tax nag ngir respecter barab yi dëkk bu ne dañoo xool la nga xam ne moo fa war a méngoo ñu def ko fa Bambey agriculture lañ fay def saint bi tourisme lañu fa def ak ak ak yar ay ay ay ay ay ay ay jën bu dee dakaar lu jëm ci électromécanique technique yooyu yëpp dafa am ay diplôme yu kawe li ci des mooy fu mel ne fee ñu defoon suñ soñ bu euh, santé lañ fa doon bëgg def mais dañ moom ak ak ak ak ak ak ak euh, finance islamique fa nga xam ne mooy mesra gi ñu waraat ubbi te tudde ko suñu Abdou Fatah mooy santé lañ fa war def fële nga xam ne mooy Ndar tañ defar fa benn bu noppi na moom itam dañ ko bëgg tuddee sunu maam Mamoor Jaara moom itamit te bëgg a topp nag buñ noppee kilifay diine yi nga xam ne yëpp moo xam ci yoon wi lañ moo xam ci yeneen kër la ndax loolu dafay wane image université bi bañ xam ne li ko tax a jóg du ay parparloo du ay wut sa yëfi yi bopp parce que loolu ñun taluñu ko parce que fekkuñu ko fi fekkuñu sëñ Tuubaa bàtt lañ ne kenn ku ne wutal sa yëf yi bopp boo ko defee tamit da lay jafe-jafe te du sotti kon loolu moo tax ñun tam yàlla musul ci loolu kon mu mel ne kon euh, wax ji ñu ngi koy tënk foofu di sant ñëpp rek ni ñu ko waxee di xam ne lii rek moo ñu tax a jóg lii rek moo ñu tax sëñ bi itam nee na mi ngi ñëw ñu xam ne sëñ Touba rek a tax ñuy def amul lu ñuy tuddee université Massamba université Madamba sëñ Mourtala mosul wax yi fi boppam mosul ko wax kon nag as ci man kon nag li am solo mooy luñ ci liñ ci defee sonn ñu ci def loolu lépp loolu lépp liñ ci jublu mooy du wutuñu par jàng la jàng la ñuy def xam-xam la ñu soxla ko bu ku jàng li ñu soxla tamit koo xam ne am nga ci loo ci def wax ko muy lu leer rek parce que tamit bëlëf bëlëf moom fii mënu fi am parce que boo dikkee da ñu wax lu leer teg sa ay argument waaye budul loolu yàlla nee na yonent bi nee na kooku baax na mais danay xam la taxoon yàlla wax ko wala lu taxoon yonent bi wax ko parce que loolu mooy suñu bu ko defee loolu kon ñu bëgg kon ku ci ñëw ku ci jàpp nga jàpp ci loolu fas nañ ko yéene ci teg ci yoon wu nu Sénégal état tegal muy ay professeur yoo xam ne dañuy am rang magistral parce que tamit université dafa amul yoon ndax ñi ngi ci CAMES ñi ngi ci ANAT lu lépp ay sart la ci kon nekkul loo xam ne université falaa falaa la rek wala loo xam ne dañuy wax rek pour wax ki fi jóg diplôme yi fi am état Sénégal état adduna bi dañ koy reconnaître kon loolu du li ca deset mooy UNESCO ñëw na fi defe naa a ngi fi ñëw na fi man ne kon ni mu ko doon waxee sànq seen directrice ñëw na fi xool ba egg ci woote fi am ndaje forum boo xam ne dakaar la ko woote man mi maa ko ubbi am na fukki pays Afrique yu fi teew moo leen woote ne dafa bëgg système Cheikh Ahmadou Bamba loolu mësuñu ko wax parce que ñun dañuy gis ne am na loo xam ne da ngay dem rek ba gis loolu boobaak léegi def war na te ñoo ko wootee fii te wul wax leen ko te ISIS ko dafa am ñoo xam ne ñu dugg da ngay loolu rek doy na sëkk bi ci des ISIS ko mooy euh, ittihad jamiat islami al alami yi nga xam ne mën nañ ñetti téeméer ak ñaar fukk lu toog ñun membre la jàmmi Cheikh Ahmadou Bamba université Ahmadou Bamba nekk na ci membre loolu lépp membre boo ciy nekk lu ci gën da dem rek yor sa garaam bu sa kol ñu ne la da nga ciy dafa am ay sart sartu jàng la parce que lu sérieux la lépp lu ci ay sart toppatoo nañ ko doxal ko bañ nangu ko ba dugal ñu ci adapté ni ci loolu kon loolu tamit ngeen xam ne kon jaamia bi nekkatul bu ndaw xam naa borom tur moo ci xeexeex bu gaaw boobu fexe ba mu daj moo ñu doon suñu kii borom tur bi nag xam ne fu mu dugg dugaloo ko boppam képp ku fi nekk ci kilifa diine ci fii xamal na yaa ngi ci biir loolu moom loolu la xamoon ñun nii tamit fas yéene yooyu tànk lañ fas yéene soog kon ñoo ngi gërëm ñëpp di leen baal di leen jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu